wute ci mën ngeen ñu ko wax ñu jël loolu yëpp en deuxième différence bi mooy dañoo fii amul assise walla kii bu ñu deful euh, rencontre bu ñu deful waaye fan lay mujjee yu 2018 yooyu mais euh, Isaac Yankuba Ndiaye moo ko jiite woon euh, conclusion yeeg yëpp bu doon appliqué woon nañu ko kon heure bi duñu fi nekk di def ay assises justice mais appliqué wuñu ko mu am commission bu ñu dénkoon wàllu réforme des institutions tamit mu am liggéey bu mu jotoon def mu mel ni liggéey ba mu jotoon def tamit dañ cee teg conc loolu moo war a jeex ci wàllu justice ci wàllu wu mu mën a doon waxuma sax justice rek mais beneen secteur boo mën a jël tamit lépp loo xamee nit jotoon na ko ci jàngat ñu am ay liggéey yu ñu ci jot a def mbirum suuf si liggéey bi ñu jotoon def ci mbirum suuf si euh, di euh, fàttaliku ku ci mel ni Moustapha Sourang yaa na suñu borom xare ko àjjana te taasuñ ci barkeem euh, liggéey ba mu ci jotoon def bu doon dañu xoolaat boobu la liggéey peut-être heure bi coowal suuf duñu ko am ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dañ ko daan def mais bu fekkee ni yi ñu daan def yëpp amul jeexital ah mais ku ñëw da nga ñëw indi lu bees loo xamee ni da nga ciy sàkku mu am jeexital sàkku mu am conséquence ci ñi nga xam ni ñoom ñooy les justiciables de manière générale parce que justice nag du mbirum procureur juge tribunal rek de justice lépp a ngi ci démb maître euh, Abdoulaye Tine mu ngi koy wax ñu ne la avocat amul lu doy ci Sénégal tey ñu ne la euh, juge yi wala magistrat yi amul yu doy moo tax ñuy wax naan ni da ngay gis nit ñu jàpp ko war ko atte ci bu gaaw mais mënu guñ ko àtte parce que am na yeneen i dossiers yu taxaw ñu ñëw juge bi wala procureur yi ñu jox leen ay téeméeri dossiers ñu teg ko seen seen table di jël benn par benn souvent lan mooy indi problème bi lan mooy lan mooy doon comme conséquence ci loolu mooy da ngay dem. ñu ne la par exemple bu ñu def euh, réunion du parquet ci caavu tribunal bu Dakar wala beneen cave ci beneen tribunal procureur yi dañuy ñëw ñu jox leen ay dossier euh, nga gis ñu ne la yenn saay duñ sax xool dossier bi ci ci biir day ñëw jël ubbi ubbi ubbi euh, mandat de ubbi ubbi ubbi mandat de ba finalement da nga naan waa naka la ñuy mën a àtte dëgg bu fekkee ni ubbiwuñu dëgg-dëgg sa dossier xool ko càmbar ko benn par benn araf par araf bu fekkee ni dossier yi dafa bari si seen loxo mais dafa mel ni li ko doon waxee ci mbirum jàng professeurs yi bu ñu defee bag wala BFEM copie yi li ñuy war a corriger bari na bari boo xamee ni bu ñu amul suffisamment de professeur nga jox ku nekk nga jox ko ne ko jëlal loo bii nga corriger ñu jël seen temps liir xool ndegam kii li mu bind baax na wala baaxul moo tax ngay dégg ñu ne nit ñëw ne la man je suis que sama sama sama euh, exercice bi ma def examen bi ma def wala composition bi ma def ci philosophie wala ci mathématique wala ci leneen buñ ko xoolee dëgg dëgg dëgg am naa note bu baax waaye bari na bari boo xamee ni yenn saay ñu saax saaxee ko comme on dit euh, justice tamit il faut que ñu xoolaat ko joyante li ci nekk te loolu je pense que début la ndax tey lañ koy tàmbali ku ci nekk joxe nga sa xalaat am na benn document muy liir boo xamee ni greffier yi ñoom ñoo ko bind nee ni ñoom lii mooy seen joyanti am na ci biir document bi ñuy wax benn cas boo xamee ni mais kaaboo boobu ñu bari dafa leen di dal mooy Ablaye Naar am dëgg ci kaw Cheikh Diop au lieu ñu teel ko lijjanti dëgg boobu mu am te justice ne ko yow yaa am dëgg muy traîner ñaata dossier nga fi gis yoo xamee ni day am décision de justice ñu ne la mënaguñu ko appliquer parce que indil la ay prétextes yoo xamee ne doo ko gis mbirum suuf soosu euh, am na cas bu mu leen di wax fan yii yëpp lu xew ci booru aéroport euh, Diass koo xamee ne dafa am kayit yëpp am décision de justice pour taxaw taxawal nouvelle ville euh, di ab société boo xamee ni lañ ci war a liggéey ci ay logement bari na décision yëpp mu am ko ci justice ba descos ne ko yow wax dëgg fa na yàlla décision yi nga yore yëpp kay di nga yore yëpp yëpp a légal lenn doo nga des mooy appliqué ko application bi pose problème ba tey ñu koy ngaw ŋawti ŋawte di ko va et ci diggante euh, ministère bi ñu denk wàllug euh, càmm beeg mbay meeg yooyu ak yeneen i kii juste pour lan parce que situation bi tey euh, dépassé na leen alors que am na décision de justice décision de justice fu mu amee nañ ko appliqué bu dee baax naak baaxul yëpp nañ ko appliquer nit am na sañ-sañu nag ñëw dellu si recours te loolu mooy may doole justice doole dañu ko justice dañu nësaxal dooleem euh, nësaxal dooleem moo indi woon par exemple bi ñuy woo Ousmane Sonko euh, en tant que opposant devant la justice lan moo tax wuyu jiwul parce que jàpp na ni justice bi ñu may woo dañu ko dañu ko maanaam euh, moomul boppam dañ ko politiser kon man wuyuwuma justice parce que ñi may fekk ji duñu justice ay politiciens lañu cas yu mel noonu bu ñu bañee mu farataal di am faw taxawaay bi nga xamee ni président la république am na ko pour assises yi ànd gouvernement bi ànd ceeg mbooleem doomu réewum Sénégal ñu mën buñ ci génnee lañ ci am comme conclusion ñu mën ko appliquer pour que képp ku justice woo di nga xam ne justice moo ma woo mais pas ay homme politique wala ñoo xamee ni politique wala état wala régime moo leen sant day fekk ñu jox doole boobu la justice te loolu je pense que tàmbali la euh, nañ ci dem parce que sa permet même yeneen ñu ñuy jooyante yëpp ñu naan ay mbirum suuf dund gi cher nag yooyu mais bu ñu régler kaawu justice ba mu leer euh, parce que c'est rendu pour les sénégalais ñi koy rendre ay sénégalais lañu mën nañoo juum texte yi dañ la naan texte yëpp baax na. mais est-ce que texte yi baax yooyu nit ñi nekk war a appliquer texte yooyu ndax mën nañ euh, ndax ñooñu baax nañu seen une ñoom justice ñooy war a defar seen bopp xoolaat ñan ñoo ci bokk ñan ñoo ci bokkul jox ko askan wi ñoom tamit askan wi am nañ ci seen xalaat ñu mën a dugal lépp ci benn pañe defar ba nga xamee ni daal l'essentiel mooy bu ci buñ ci teg euh, benn conc ba ñu décider waxtaan ba mu yaatu ba ba mu sori ba pare ñu ñu fàttewaat ko ci tiroir mi ngi noonu euh, buñ ci teg benn conc lu ama am solo la ndax euh, conc moom fu mu tegu fu ne